alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata allazina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مبكي مبكي جلتي téléspectateurs yi nga xam ne ñooy suivre seen télévision Safina FM ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaan jàmm ji yaatu sutura xéewal barke jaamu yàlla gu yàlla nangu yàlla ñu ko yàlla defal defal leen ko ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu ma sha allah ñu dellusiwaat ak yéen seen émission madhu nabi nga xam ne fa tabarakallahu dañuy waxtaane sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ay njàngaleem di ko jaare ci mbindu mag ñu baax ñi fa tabarakallahu ma sha allahu fa tabaarakallah waaye tey nag ñu tànn benn qasida boo xam ne euh, Cheikh Alxaaji suur moo ko def tabaarakallah nga xam ne barki dem rek la woon anniversaire am le 29 mars bi passé mu jàngale ci njàngale mu am solo ci xale yi nga xam ne wala mag ñi nga xam ne yàlla def leen a ñor ñu bëgg dem ci yàlla bëgg a yegg ci yàlla Alaaji suur tracé leen yoon boo xam ne buñ ca jaaree yegg te yaakaar naa ne ku nekk bëgg ngaa yegg ci yàlla kon xasida bii képp kuy ndaw wala képp kuy mag wala képp ku yàlla ñor nga bëgg a yegg ci yàlla war nga xam lan la alxaaji Mansour di wax ci xasida bii alxaaji Mansour nag su ma ko waxee doy na misaal Cheikh alxaaji Abdul Aziz Si Dabbaax mi nga xam ne ci jikkoom ju rafet ja ci jëflanteem bu rafet ak doomu aadama yi dem ba ñépp naw ko ba ñépp bëgg ko sopp ko ba ci gëmul yàlla sax bëgg na Cheikh alxaaji Abdul benn chrétien daa toog ba yàgg mu ne ko su ma doon jullit di am sëriñ yaay doon sama sëriñ ndax jikkoom ju rafet yoon wi mu jaar mu Alaaji Mansuur ki ki ko ko tra ki moom Cheikh Alxaaji Abdu ki ko traceel yoon bi mooy Alaaji Mansuur bam naa ko ya Abdal Aziz airni alqalba usika wasiyatan anka tasfi kulla ma fiika fi za zamani allazi amma alfasaadu bihi wala tara ahadan fihi yusaafika fa gudda tarfak laa tafxas axi abadan wala takun wala takun yuaadi man yuaadi wala takunan yuaadi man yuaadika alaaji suur na Cheikh Alxaaji Abdu jox ma sa noppi xol man laaye biir la teg la ci yoon boo ca jaare lépp baax Cheikh Alxaaji Abdu jox ko noppi xolam diglu ko mu tarasel ko yoon mu jaar ca moo tax ñépp a ko gërëm fa tabaarakallah kooku nag moo dellusiwaat di wax ak ndaw yi alxaaji Mansuur taajabtu mimman yabtaghi qurba rabbihi wa yusghilu bi lazati sawdaa qalbihi alaaji Mansuur ne man de yéem na ma koo xam ne nee na daa bëgg a jege yàlla te foo ko fekk mu ngi jëf ay bakkaar yoo xam ne day ñuulal xolam waaye dangaa bëgg a yegg ci yàlla te sa xol baa ngi fees dell ak kiñaan dangaa bëgg a yegg ci yàlla soxol baa ngi fees dell ak soxor dangaa bëgg yegg ci yàlla te yaa gën a bëgg jigéen da bëgg yegg ci yàlla te lekk rek ngay def lekk gu bari baaxul booy lekk lu bari doo man jaamu yàlla sëriñ fàll mbàkkee danaa wax naan këll këllañ rek lekk bu suur nelaw rek foo fekk lekkat nelaw yu bari rek hmm? kon fa laa alaaji Mansuur nee na bëgg yegg ci yàlla bëgg noflaay bëgg bànneex lool ba pare bëgg a yegg ci yàlla mënul nekk mag ñi dañ daan yar seen bopp Cheikh Alhaaji Malick daan na dem mujj gi xoolal daqaar la daan dundee laa ko daqaar la daan dundee ak ndox te amoon na ganaar amoon na lu mu jëndee bëy am na lu mu jëndee xar am na lu mu noosee waaye mu bàyyi ko fa ngir yar bakkanam wa nafsuka tifli in tuhmilhu ala xubbi ridaa sab ala xubbi ridaai wa in taftimhu an ridaa sab yan fatim maxaal bu cheikh day wax ne bakkan ak xaleeyam soo ko neenalee moom bakkan day nàmp di nàmp ba doon ponkal rek gis nga xale buy nàmp soo ko feralul day nàmp ba doon ponkal waaye danga koy feral mu bàyyi nàmp ni noonu bakkan tamit ni mu bëggee bànneex moom bakkan boo ko ca bàyyee day bëgg bànneex ba bejaaw di bëgg bànneex ba dee kon nag pour bakkan bi bàyyi bànneex yaa koy tere hmm? fasrif hawaha wa xaasir an tuwalliyahu ndax inna al hawa ma tawalla yasmi aw yasmi nee na moytul bànneexu bakkan yilif la de bu la yilifee rek dala dana la rey wala mu alag la kon fa tabaarakallaahu alaaji Mansour nee na ku bëgg a yegg ci yàlla da ngay moytandi ko bànneex mbokk yi mu ne fa laa tusxilanna al qalba minka li gayri ma yuqarribu min rabbil ibadi wa xisbihi nee na sa xol bii bu ko soxlaa lenn lu dul loo xam ne daf lay ñal sa boroom waaye jegeñal la kuréelu yàlla te mooy ñi nga xam ne alxuraan la ñuy dundee sunna la ñuy dundee rasulullah la ñuy roy moom la bëgg foo leen fekk ci lu baax lañuy ñuy nekk ñooñu daal na nga fexe di jaxasoog ñoom na nga fexe jaxasoog sa borom jëlal sa xol bi jox ko yàlla waaye jëlal sa bi jox ko ñooñu bëggal ñu baax ñi bëggal yàlla Alaaji Mansour nii lii daal boo ko defee mën ngaa am chance bu rëy rëy rëy rëy pour yegg ci yàlla waaye daal bëgg a yegg ci yàlla te te fu ñu la fekk moom tabaarakallaahu yi neex yi rek nga bëgg doo gaaw yegg mu ne wayn taku masguula aljanaani bi gayrihi fa inniya masguulu lfuaadi li xubbihi alaaji Mansour ne soo ñàkkee fayda nag ba jël sa xol bi jox ko keneen ku dul yàlla na la wóor ne man alaaji Mansour day sama xol bi jox naa ko yàlla bëgg yàlla lool jeex takk ci yàlla ndax xam naa ne bëgg ba bëgg jeex bëgg yàlla ci gën keneen koo jox sa xol ku dul yàlla da koy fooye de sa xol bi koo ko jox ku dul yàlla mu fooye ko kon nag jox ko yàlla mi ko dul fooye tabaarakallaahu mu ne alaa fastafiq min xabrati dëhri laa tadum waaye nag wa kun aabidan lillahi tuxza bi qurbihi alaa ji mun sur ne yeewul ci lëggug jamono jamono jaxasoo na de gaa ñi xàmmeetuñ lu xaraam ak lu dagan lijjanteetuñu lu xaraam ak lu dagan ku ci nekk foo mën jaar ba am ay milliards ak i yaa nga ca di buub di dajale rek kër yu rafet yi daal dinaa ci am oto yi rafet yi dinaa ci am nekk ca loolu rek topp bànneex mbumbaay beeg tabaarakallaahu ak ñi nga xam ne dañuy jayaate rek da dëkk ci lu bon ñu lay jay naan lay dangaa baax sa xol moo rafet te doo xëy ci lu baax doo gont ci lu baax ñu naan la sa xol moo rafet boroom xol bu rafet boroom xol bu baax bi ñuy tuddee xol boroom xol bu baax fa yàlla mooy ki jël xolam jox ko yàlla ki bëgg sayduna muhammad ba jeex tàkk moo tax alqalbu sax soo ko xoolee 132 la lay jox tolloog muhammad moo tax boo gëmul sayduna muhammad royoo sayduna muhammad soxal baaxul ak comment doon moo tax léeg-léeg nga gis ko naan tubaab yi de moom ñoom moom seen xol daa rafet ñoom moom nangam nangam nangam yomal xiyaam moom ah wóoru tamit dugg aljana de loolu ci xel la yam waaye yàlla tënku ci ay xel yàlla ne allazina kafaru wa saddu an sabilillah addalla amalahum yàlla nee na ñi bàyyi fii yàlla bàyyi fii lislaam topp seen bànneex bakkan lu ñu mën a wane ci lu baax ci àdduna nga di ci teg sa bët ak lu ñu mën a jëf ci lu baax yàlla nee na adalla amalahum sànq naa seen i jëf amul benn njariñ yàlla balaa nga mën a jëf mu d'accord day fekk nga nangul ko yàllam gi nga nangul ko ak yàllam gi royal ko sayduna muhammad soppem bii mu yebal ci yow boo ko defee ba pare nag loo mën a ci lu baax yàlla na waaw kay waaw góor waaye faale woo yàlla faale woo yonent yàlla Muhammad ah loo def lu baax lu baax tamit amul njëriñ dafa tabaarakallaahu alaaji moo soon nag ne na ngay jaamu yàlla boo saxee ci jaamu yàlla daal tox sa bi qurbihi yàlla mën na laa wërsëgale na nga jege yàlla te mbokk yi ku jege yàlla sa lépp bu baax ah waxuma la sax dara waaye Macky Sall mii nga xam ne nit la rek yàlla dénk ko Sénégal muy président mais ko ko jege sa affaire baax ah laajal laajal ñi jege Macky Sall ñi ko jege ñëpp a fiix ñëpp seen affaire yaa ngi dox ci wàllu àdduna lépp a ngi dox ah parce que mooy président bi moom moo yor doole yi sunu borom la laa ko jox dooleem mu koy doxee ah nag boo jegee yàlla kon boo jege yàlla sa lépp baax waaye nag boo dee fecc da ngay sori yàlla fecc mbokk yi. Sénégal nag fecckat yi bari nañ de waaye kuy fecc ku ne la yaa ngi sori yàlla fecc day boo koy def dangay ngay sori yàlla booy déglu musique sa xol day wow soo bëggee sa xol di neex di dundu dangay ngay déglu alquran di zikkar la ilaha illallah ko defee sa xol dund alaaji Mansuur ne wa addi ani dunya daniyati wa jaalan li nafsika xisba dahri turan ka jadbihi alaaji Mansour ne na jéggil àdduna bii nga xam ne jeex na ba noppi jéggi ko te nga def sa bakkan bii nag li naat ci àdduna mu mel ni ci yow li bekkoor waaye tabaarakallaahu àdduna bii ku ko topp di ko dàq di ko dàq ba xëy faatu te doo ko jot te deema mu ngi lay dàq taala kulli xaal dee dina la jàpp niib kon na fa tabaarakallaahu bàyyi xel de am na solo de kuy bàyyi xel dee nag doo jël sa jëmm yépp jëbbal ko àdduna maam borom tuubaa nee na la tashtari dunya bi uxra yaa fata maa ngi lay yéegal ne man baa anuuran bi duja fa sa yandamu maam borom tuubaa nee na rekki waaye bu jël sa àdduna bi jëndee ko sa alaxira ndax ku jël leer jëndee ko lëndëm perte leer a gën lëndëm alaxira moo gën àdduna ndax àdduna day jeex te alaxira du jeex te alaxira loo fa yóbbuwul doo ko fa fekk kon nañu profitoo jaamu yàlla ngir ëllëg lu am solo la alaaji Mansour ne ne sa bakkan bi na nga na nga ci yamale ak naataangeeg àdduna ak bekkoor xaj sàmba maa nga ne am na ñoo xam ne bu ñu amee xaalis yaa ngi koy xamee ci seen jaamu yàlla bu jaamu yàlla gi jaaree yoon tee dal rafet jekk wer di jaar yoon teewlu ah jàppal ne gars yi am nañ xaalis tey de waaye bu ñu amul xaalis dañuy parax paraxee julli gi weer gu ko teewlu mel ni kuy defanteeg yàlla nag parce que ab jullit dafa bokk ci imaan nga gëm yàlla su neexee ak su naqaree soo xaalis bi baree jàmm ji bari xéewal gi ñëw na ngay gëmee yàlla boo ñàkkee dara amut noo nga war a gëmee yàlla mais loolu moo jaatoo waaye su affaire doxee nga gëm yàlla su doxul nga nga bëgg a ñànki mais baaxul ab jullit day gëm yàlla nag te wóolu ko te nag yàlla nag bu la bëggee nag faaw mu la teg nattu léeg-léeg mais bu la yàlla tegee nattu rek nga ne yàlla génn ci génn ci man yàlla damaa seetaan man de xamul ma def yàlla lu tax mënu maa am bànneex àdduna nangam nangam nangam nangam te fekk am na ñu la gën a sonn te ñu ngi sant yàlla kon ab jullit du xarab yàlla ab jullit day muñ dogalu yàlla di muñ nattu yàlla yàlla nee na maa ngi ànd ak muñkat yi te am na aljana boo xam ne muñkat yaa fay dëkk waaye nag boo muñul doo fa bokk doo ca bokk boo muñul doo ànd ak yàlla te ku àndul ak yàlla ànd ak seytaan yi te ku ànd ak seytaan da lay nërmeel seytaan baaxul sa noonu la inna seytaana aduwwun lakum fattaxisuhu aduwwa la yàlla wax yàlla ne na seytaan seen noonu la jàppee leen ko noon parce que innama yuridu seytaan an yuqia baynakum al adawata wal bagda seytaan li muy dox chaque jour mooy ngeen bañante di soxorante di siisante di rayante di yàqante ay der loolu bëgg ah kon nag yéen xam leen seen bopp ngeen jébbal seen bopp yàlla raxas seeni xol dund ko baax bien fii bien fële rek ni la affaire bi demee alaaji Mansuur ne falaa tabta is bil jat bi in jaa muqinan wala tafraxan in jaa naa fartu xisbi hmm? fartu xisbi alaaji Mansuur nee na bu bekkoor ñëwee bul tiit bul jàq ba corona bi wax dëgg yàlla wane na jullit ñi piir waaye wane na tamit ñi nga xam ne nii dañoo gëm yàlla te wóolu wuñ ko ak ñi gëm yàlla piir mënees na leen a xam ci corona bii ab jullit dara warta mën na ñëw ci kawam ba muy jàq di tiit bu fekkente ne gëm na yàlla te gëm nga di dëgg ca moom parce que yàlla moo ne wa ma min dabatin fil ard illa ala allahi risquha lépp lu yor tànk di dukkat ci kaw suuf wala ngay naaw lépp lu nekk sama kaw suuf sii sama asamaan sii tiim la yàlla nee na maa yor sa wërsëg chaque jour ma lay dundal kon bekkoor bi lu mu bari bari bari bari yow miy jullit gëmmal yàlla gëm gu wóor ne ala kulli xaal saa boo xëyee di lekk di nga naan ah bu booy wëree di nga lekk di nga naan kay doo ci it kon lu mat bàyyi xel la ñu bàyyi xel baax a baax a baax waaye tamit nee na bu demee ba affaire yëpp di dox xéewal gi bari lool bul bég de ndax inna allaha la yuhibbul farihin yàlla ne bëgguma ñuy bég waaw bu alal ji bari rek nga commencé kontaan xam nga kontaan xam nga mbégte gu bari fi mu lay yóbbu mooy daf la yóbbu ci naagu te naagu def la yóbbu ci daagu te daagu nag boo ko defee gaa yi romb la waaw mbégte bu bari baaxul tabaarakallaahu euh, yàlla nee na fal yadaxaku qalilan wal yabku kasiran yàlla nee na da leen jooy lu baari tey ree tey ree lu neew loolu nag ku ko xam ah tabaarakallaahu lu xéewal gi bari bari bari da xam ne yàlla yàlla rek a fi nekk aywa alaaji Mansour ne asix bi uzni alqalbi tasma nasihatan ida kunta mimman yabtagi qurba rabbihi alaaji Mansour ne jox ma sa nopp xol ma laaye biir la fekkente ne danga ngaa bokk ci ñi nga xam ne nee nañu dañoo bëgg yegg ci yàlla soo bëggee jege yàlla alaaji Mansour ne jox ma sa xol ma teg la ci axe fi ma lay teg boo fa jaaree ala kulli xaal di nga yegg parce que nag tabaarakallaahu xam na yoon wi te miin na ko nag Euh, tabaarakallah na misaal nag Cheikh Alxaaji Abdu waaw waaw loolu la ci ne moom mën na laa teg ci yoon alaaji Mansuur ne fa in kunta min mawlaaka tatlubu wuslatan alayka bi xayril aalamiina alayka soo bëggee yegg ci yàlla maa ngi lay dénk nga topp sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa nga xam ne moo gën ci arab waaye tamit moo gën ci ajam alaaji Mansour nee na soo bëggee yegg ci yàlla royal sayyiduna muhammad te yàlla ko njëkk wax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaan yarju llaha wal yawm al yàlla nee na su ngeen bëggee royukaay sayyiduna muhammad a ngi roy leen ko ku ko roy boo ñëwee ma fay la fay gu ndax sayyiduna muhammad nag xam na yàlla te xam na ni jaamoo yàlla te xam na li yàlla bëgg xam na li yàlla bañ tey jàngale na lépp bàyyi fi kon royukaay baa ngoog moom la ñu yàlla joxoñ hmm? mooy nag tanazzah anaw saafi dana ati baaxiya ridallahi taqfu mursidan muqtadan bihi alaaji Mansuur ne na nga sori nag na sori mbooleem melokaan yu suufe yi mbooleem jikko yu bon yu yées yi alaaji Mansuur ne sori ko de bu la ci kenn gis waaw bu la kenn fekk ci sabar yi ngay ngay fecc buñ la gis ci soirée yi buñ la gis ci lamb yi buñ la gis ci football yi buñ la gis fe buñ la gis ci grand place yi alaaj mursuur ne moytul iñaan moytul soxor moytul gis sa bopp moytul rëy moytul puukaru moytul ndamu moytul naw sa jëf mboolem jikko yii moytul fen moytul rambaaj yëpp alaaji mursuur ne na nga ko moytandiku tanazzah anaw saafi danaati waaye nag baaxiyan ridal mawla nee na nga sàkku nag ngër ma ndek yàlla nag ridallahi baaxiyan ridallah nee na nga sàkku ngër ma nde ndax ab jullit amul lu gën ngër ma nde yàlla boo demee ci lam yakuni lazina kafaru ca jeexantalu saar ba yàlla nga naan radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman xashiya rabbah yàlla nee na ba yowmal xiyaame am na ñoo xam ne daañu kontaan ci man lool waaye am na it ñoo xam ne man yàlla danaa kontaan ci ñoom lool parce que yàlla li mu diggee bu yowmal xiyaamee dana ko def kon képp ku jaamu yàlla yàlla fay la nga bég ñooñu kontaan nañ ci yàlla parce que leen yàlla digoon def na ko te it ñoom ñi nga xam ne jaamu nañu yàlla yàlla kontaan na ci ñoom parce que leen yàlla sant def nañ ko moo dama ne zaalika liman xashiya rabba loolu nañ ñi ko moom mooy ñi ragal yàlla kon ab jaam dafay ragal yàlla alaaji Mansour nag yoonu yàlla ku feebar du fa dem yoon bi mal sunu boroom alaaji Mansour de ne ku feebar du fa jaar parce que boo ca jaaree boo ca suuboo ci yoon bi ngay dee kon balaa ngaa suubu yoon bi na nga wér comprimé ne comprimé bi nga xam ne boo ko naanee wér nag médicament bi man ko yor ma alaaji Mansour ñu ne ko yàlla mu ne ñeent ngay composé jëla at taqwa al azmu as sabru al uzla ragalal yàlla bu wér na nga dogu am engagement bu baax bañ bañ bokk ci ñuy dellu gannaaw na nga muñ kat ndax yoon bi dafa métti bëri na xaaxam bëri na dëkk bëri na lépp waaye muñal rek na nga beru nit ñi it nag ndax an naasu aadaun liman amal ilaa nit ñi ay noonu ku dëgmal yàlla lañu dañ lay décrasé kon ba leen moo tax mu ne bi maa it tuqaa wal azmi wa sabri uzlatan anil xalqi fasrab walta duuman bi xubbihi am nusxa bu def bi abbihi mu ne fasrab nanga naan bi maa it tuqaa ci ndoxu ragal yàlla wal azmi ak dogu wa sabri ak muñ ak beru anil xalqi walis mbindéef yi walta duuman da sax nag bi abbihi ci di ko guux walta duuman na nga sax bi xubbihi ci bëgg garab gi di ko naan soo ko defee rek di nga wér jàngoro bi nekk ci yow yëpp daal di wér boo sóoboo yooyu daal di mën a yegg ci yàlla waaye nag comprimé yi ma la wax boo ko jëlul boo sóobee ci yoon doo yegg parce que yoon bi kenn du ko sooboo noonu alaaji Mansour ne wa iyaaka iyaaka ngi lay moytandikuloo di la moytandikuloo encore bëgg njiit ndax kat nit dees na ko alak ci naw jëfam nit dees na ko alak ci bëgg njiit am na ci beneen xasida ne xubar riyaasati daa nee na bëgg njiit bàyyi ko waay mu ne nag te zallal na nga toroxlu ndax fa innal fa innal mar a yurda bi ujbihi alaaji Mansour ne nit léeg-léeg ñu alak ko ci naw jëfam te nit nag naw boppam dana tax mu bëgg a jiitu ñëpp commencé di ñoddi di xëcc hmm? tabaarakallaahu te li ngay ñoddi bu ñëwee ah, xamoo foo jëm ak moom waa ji moo sën njiit dafa metti hmm? mu ne ko wa kun taarikan hazlan jidaalan xusumatan miraan wa kun layin al janaabi li mushbihi alaaji Mansuur ne na bàyyil mbóolant wax yu amul bopp amul geen inventé ay wax di wax rek bëgg a nit ñi tax nga ay kër ay fen di wax nit ñi xàqtaay di wax lu ñuul ak lu ñuurut lu sëyoon nekk nga wax lu sëyoonu nekkul nga wax alaaji Mansour na dikk waaye bàyyi loolu min xusni islaamil mar'i yàlla Muhammad nee na bokk na ci lii rafetal lislaamu nit mooy lépp lu ko amul njariñ mu bàyyi ko alaaji Mansour ne kon bàyyil mboolante jidaalan bul dàgg sante dàgg sante baaxul rawatina ci góor ñaaw na lool ba jéggi dayoo xusumatan xuloo baaxul nit ko am ambition xam fi mu jëm du xuloo tegu ca yoon dem sa yoon ah mira an weerante baaxul sunu sëriñ sëriñ la mi ñang dalaa wax naan weerante baaxul ndax weerante li muy jur mooy weerante weerante li muy jur mooy weerante damay weerante ak xaaji sàmba si ñuy weerante weerante ba yàgg sàmba nangul ma daan ko man tamit nanguwu ma daan ma ñu jékki-jékki commencé waxate lu bon lu mu xam ci man lu bon wax man lu ma xam ci moom lu bon ma wax ñu dem ba yàgg loolu dalu kursa ñu dal benn mu wéer ma ci suuf wala mu wéer ko rek ba xam nga kon amul njëriñ mujj ga amul njëriñ muy nag wakkun laynal janaa bi na nga nooy wàll li mus bihi ñe rek ngay jéem a nduru nduru lu ta mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax si daaj maa leen wa alyanu naasi qaalu lam yakun abadan bayna sahabati za maddin min alqadami Cheikh Sidi Haaji Malik nee na sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gënoon nooy ñëpp waaye musul toog ci biir saxaaba yu tàllal tànkam loolu alxaaji malik moo ko ca roy alxaaji mansuur nee na seydi alxaaji malik maa madda rijlayhi fi qawmin iza jtamacu fi xalwatin hakaza min xawfi mawlaahu nee na seydi alxaaji malik roy na seyduna muhammad ba musul toog ci biir mbooloo tàllal tànkam waaye musul wéet tàllal tànkam kon fa tabarakallahu lu am solo la nañu roy seyduna muhammad ci nooy waaye nooy nag yemul ak ñàkk fayda ñu bàyyi ko xel mu ne wala taku muxtaalan faxuuran wala tuti' hawaaka wa zar murra alqada bi azbihi alaaji Mansuur ne wala taku muxtaalan nekk muxtaalan di ngand ngandulu faxuuran di puukarewu wala tex bul toppit hawaaka sa bànneex wa zar bàyyil mural qadaa way weex yi dogal yi bi asbihi ni ki way neexam ya de alaaji ma suur ne bul rëy rëylu bul puukarewu bul topp sa bànneexu bakkan te dogal yàlla yi neex yeeg yu naqar yi na yem ci yow de bu yàlla dogalee ci yow lu neex na nga muñ bu dogale ci yow lu naqari eh, bu dogalee ci yow lu neex na muy neexe ci sa xol bu dogalee ci yow lu naqari na mel noonu ci yow mu ne axi bax sa awratin ibaadi fa janiban wala taslimanna al abda muzhira aybihi wa man kaana an aybil wara bi uyubihi axa sugulin tumxa akabira akabiru zanbihi alaaji Mansour nee na rikk waaye na nga moytandiku di gëstu ayibu jaam yi bul jël jaam ni yow di gëstu lu mu ñaaw la di ko weer bul ko def alaaji Mansour nee na bul tooñ mukk ab jaam ngay wañe ngay wane la mu ñaawle réew mi nag léegi yegg na ci fa yegg na si sax léegi am na ñoo xam ne seen liggéey li ñuy def métier di ci xoyeeku di dundal seen seen seeni seeni njaboot mooy mooy di topp nit di gëstu lu mu ñaawle boobu métier nag yàlla nañ ci yàlla musal ab jullit day ut métier mu dagan waaye ñu fay la nga topp benn waay fu mu toog nga filmer fu mu toog nga foto foto ah di ko topp di ko topp ngir lan jéem a am ci moom rek loo yàqee deram loolu ab jullit bu nekk war na koo moytu allo àdduna jaru ko de bisa ngi ñëw nga faatu de te boobaa na di nga xam ne lépp dëgg la kon lu mat a bàyyi xel la alaaji musuur ne kon bàyyi leen di gëstu ayibu nit ñi rik waay bàyyi leen ko ndax yàlla nee damaa xaraamal tooñ saa bopp xaraamal ko seen diggante bu leen tooñante inna allah harrama zulma ala nafsihi wa jaalahu muharramatun baynana fala tazalamu kon nag bul tooñ sa mbokkum jullit te képp koo xaawi suturaam tooñ nga ko alaaji Mansour ne wa man kaana axaa suxalin képp koo xam ne yaa ngi soxlaal sa bopp an aybi an an an aybil wara bi uyubihi képp koo xam ne yit sa ayibu bopp doy na la sëkk ba taloo xool nit ñi li ñu ñaawle kooku alaaji Mansour ne na tumxa akaabiru zanbihi dees nga ko faral bàkkaaram yu mag a mag yi gis nga bu fekkente ne say bàkkaar say ñaaw téef yi bopp rek da laa doy sëkk chaque jour nga di ci xalaat nooy def ba yàlla jéggal say ñaaw téef nga nekk ca loola ba taloo xool sa mbokkum jullit la mu ñaawle alaaji mun suur nee na dees na la faral sa mboolem bàkkaar yu mag yi lii rek waroon naa mën a tax jullit bu nekk yem ci say ayibu bopp bay ayibu nit ñi yàlla gis na lépp te teewul mu ngi suturaal su bëggoon su bëggoon ñuy xaawi sutura kon moom mooy xaawi sutura yi moom yàlla waaye nag dafa bëgg ñuy suturaalante Seydina Muhammad nee na ku suturaal sa mbokkum jullit ci àdduna bu yowmal xiyaame yàlla suturaal la kon la nga ciy déggee mooy ko xaawi sutura sa mbokkum jullit bu yowmal xiyaame yàlla xaawi sa sutura kon fa tabaarakallaa lu moo bàyyi xel la ñu daanale ci ñaari bayit yi makaarima axlaaqil karimi fa raaxiban alayhi salaamullahi wat wa wat ab bi dëbihi xusil afwa warid wakzim wakzimil gaysa muxsinan fa akthir bi ajril muxsinina baxin bihi sidi aaj Mansuur ne xemmeemal bëggal soppal tedd ngay jikkoy ku tedd ka ta mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yal na yàlla doolu xéewal ci kawam alaaji Mansuur ne nag na nga baaxoo ak mbaaxam moom sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam makaarimul axlaaq mooy lépp yàlla bi muy tagg njol màkka et pourtant njol màkka moo dàq ñëpp ah et pourtant fi la ko yàlla bàyyi taaram googu fi la ko yàlla bàyyi tagg ko ci jikko kon jikko la ñuy nawee nit du taar du bari alal du am daraja jikko ju rafet la ñuy nawee nit ku la gën jikko moo la gën sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam nag moo ñu gën a rafet jikko moo tax mu gën ñu kon boo bëggee bokk ci ñi gën incarneel jikko yi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam alaaji Mansour ne del nee na del baale alaaji Mansour nee del baale ku la tooñ baal ko ku la tooñ nga am doole mën a fayu baal ko te yàlla tax yàlla nee na boo ko defee bu yemal xiyaamee ma baal la wal yaafu wal yasfaxu ala tuhibbu an yaxfira allahu lakum hmm? yàlla neen di xanaa bëggu leen bu ëllëgee ma jéggal leen ku bëgg njéggal ëllëg da ngay jéggale alaaji Mansour ne wa arid ñi la réere du mooyu bu leen dégloo xaaji Samba bëri kuy wax ci yow lu ñaaw taxamu la de billaay bu la xamee rek rus waaye nag am na benn waaj yoo xam ne sa noon la rek jaar ci moom yàq sa der moom mu topp ci loolu rek moo tax nit ku am fulla ci boppam am personnalité wóorul def rek luñ ko indi la mu téye loola nit balaa nga ko jàppal dara na la jëf wala mu wàll la nga gis ko waaye diw daa bon te gis wanu la ak mbon na nga jàpp mbon nga mais loolu boo ko ci nitee da ngeen fulla sa bopp waaw moo tax saa saa naan diw daa ba dafa baax ak man faa baax ak man waaw saalum saalum ñoo koy wax naan diw de daa baax ci man parce que nit mën naa baax ci yow bon ci keneen waaw bari nag ko ñu xas naan daa bon daa bon yàlla boo leen mu baax ci yow kon fa tabaarakallaahu nit bu la wanul lu bon bu bul ko ko jàppal jàppal ko lu mbaax ba keroog nga gis ci moom leneen te boo gisee ci moom leneen na ko laay biir ndax loolu mooy dëgg hmm, waaye bul wër di yàq deram wakk zimil gayza alaaji Mansour ne nëbbal sa mer ki la def lu def la lu ñaaw nga nëbb sa mer jéggal ko te yàlla tax loolu la sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam hmm? wal kaazimina al ghayz wal aafina ani naas la yàlla wax ko fa tabaarakallaahu nëbb mer dafa am solo rawatina nag ci ab jullit waaye nag weq ku la weq ko ah te olof naa bala mbaam weqi nga weq ko ah mbaam yee hmm? bari rek da ngeen ni mbaame mbaamee du ngeen xam ñoo la gën a mbaamee ah mbaam yi bari rek ah? bu fekkee seen waa kër dañuy jaay mbaamee daañu xam ne sunu kër ñu ne gën a mbaame ah mbaam bi yàggee pénc mi yëpp duñu mbaame kon kon tafa tabaarakallaahu ku la tooñ baal ko del jéggale ñi la xamul di wax ci yow lu ñaaw bu leen faale waaye ñi la tooñ nga mën a fayu jéggal leen te yàlla tax ndel nëbb sa mer boo bëggee doon sang soo ko defee nag muxsinan ngay koy rafetal alaaji moom soo nag fa akthir bi ajril muxsinina baxin bihi waay waaye xaaji sàmba del bari looy jëf lu rafet lu baax ndax ëllëg yow ma ndax nag ëllëg yowmal xiyaam ku yóbbu jëf lu baax ku dem ku fa dem yóbbaal jëf ju baax sa affaire baax waaye ku fa dem yóbbu leneen fa tabaarakallaahu loolu ngay am kon yàlla na yàlla doolu sutura yàlla na yàlla doolu jàmm yàlla na yàlla doolu xéewal fa tabaarakallaahu mel ni tey jii la alxames di premier avril fa tabaarakallaahu group samp Seydina Mohamed ba soxna Aïda Cissé tey jii la ñuy feetu seen euh, anniversaire groupe tey la am un mu nekk groupe boo xam ne fa tabaarakallaahu groupe la ci groupe whatsapp yi ndax groupe la boo xam ne dañuy dajale seen alal di ko dimbalee daara yi fa tabaarakallah dem ci daara yi di fa joxe lu nekk ay kaamil joxe ay ceeb dëwlin lu nekk daal ci ravitaillement lu nit mën a jëfandikoo ci daara rek ñu ko fay yóbbu def nañ ko ay daara yu bari fa tabaarakallah da fu ñuy dem man dama ciy ànd moo tax ma mën koo dëggal mën koo wax tey parce que la ñuy liggéey yëpp ci sama kan lañ ko defee ko fa tabaarakallah groupe yi yi WhatsApp yëpp bu meloon noonu kon yaakaar naa ne firme dina gën a jëm kanam dina gën a baax fa tabaarakallahu ñu ngi koy ñaanal baax soxna Aida Cissé yàlla na yàlla gën a dolli xéewalam ba lim bëgg ci diina ji yàlla defal ko ko ci dara ji sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam di nuyu nag ñi nga xam ne ñu ngi béggee seen télévision Safina TV di la ñaanal jàmm sutura xéewal di leen wax ne diina ji fii la nekk ku bëgg xam sa diina ci bu wér xam fi ngay teg sa tànk del bàyyi xel Safina TV ndax ay borom xam-xam rek ñoo fi nekk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu